tournée bi ma defoon nii tey Allemagne laa demoon représenté Sénégal si benn film bu ñu doon tourné foofu film gladiateur ñëw naa bërki démb beneen bi mooy am naa combat le 9 juillet fële sa Pologne di ñaan nag Thiès yëpp Sénégal yëpp ñaanal ma yàlla may ma parce que foofu représenté wuñu Mbour représenté wuñu Thiès Sénégal yëpp la ñuy représenté que ñi fay xeex tey euh, mat nañ vingt personnes kenn ku si sa drapeau ngay indi am am na ay ay allemand am na ay anglais man rek maa fa nekk nit taxawal yéeg si podium bi taxawal drapeau Sénégal kon nag ñu ngi ñaan ngeen ñaanal ñu le 9 juillet ñu dem Pologne incha allah yàlla may ñu ndam ñu soog a jëlaat beneen combat Sénégal. combat Sénégal. non amaguma Sénégal ñu may démarché nag. waaw mais maa xam nga xam naa. damaa garaaw après. Eh, eh. <laughs> léegi nag.